asalaamaaleykum mbokk yi tey la ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmmu ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëppoo ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukki fan juróom-ñett bokkul ci lim yu fàtt yi lim bu rafet la kon tey ci ajjuma ja rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ko ca daloo ñaanu bis bi yow yàlla yàlla na nga ma jéggal samay bàkkaar yàlla na nga ma yërëm yàlla na nga ma jubal yàlla na nga ma jàmmal yàlla na nga ma wërsëgal allahuma axfir lii warxamni wahdini wa aafini warzuqni allahuma axfir lii warxamni wahdini wa aafini warzuqni xadiisu bis bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ku julli ci man benn yoon sunu boroom dina julli ci moom fukki yoon sifil ko fukki ñaawteef yëkkatil ko fukki daraja xadis bi annisaa yi nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla alayya salaatan waxida sallallahu alayhi asra salawat wa xuttat anhu xasru xatiat wa rufiat lahu asru darajat waxtu julli suba waxtu dana tàbbi six heures neuf di juróom benn waxtu yu tegal juróom-ñeenti simili tisbaar treize di benn waxtu wu tegal fanweeri simili ak ñaar tàkkusaan seize heures trente-deux di ñeenti waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñaar timis dix quarante-sept di juróom benn waxtu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 yu tegal ñeent fukki simili ak ñett yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amin